allo oui Pape waaw. man maa nekk ci ligne bi Matar Lam Gueye. ayca bisimilah. Eh, xaritu doyen Ablaye Diaw. ayca bisimilah. <laughs> di la fii ci Jandeer. Pape waaw. ñu ngi leen di ngi delloo ziar bu baax. liggéey bi rafet na mais Pape Malick il va falloir aussi les les sportifs hmm. ñu tenir les Sénégalais un langage de vérité. wax nga dëgg. pour lui dire que. Hmm. ñun du ñu du ñu du ñu favori ci compétition bi. déedéet. parce que boo dee xool ci plateau yi wala ci ci émission rajo yi dafay mel ni dañu leen ni ñun Sénégal dañuy dem pour gagner la. jëm coupe du mu nga wax nga dëgg de. or oh, c'est pas ça. ñun du ñu favori. du ñu sax pour te dire outsider ci ci ci compétition bi. déedéet. et Afrique ba léegi. Mm. est en train de chercher. Mm-hmm. ñun dañu jàng. Mm-hmm. Hollande gi parmi les meilleures équipes au monde. Mm-hmm. da nga ko ci classé. ren mën nañoo xalaat ni sax est-ce que mënul gagner coupe euh, euh, euh, coupe du monde pour la première fois. oui oui et que loolu la ñuy dugal ci bopp nit ñi mais pas ñu jéem a divertir Sénégal wax ni affaire bi yomb na dañ koy gagner dañ koy nangam. déedéet mënaguñ koo gagner. déedéet pare Afrique bi équipe bi yi africain yi dem nii. Hmm. pare guñu pour gagner la coupe coupe du monde. Hmm, il hmm. faut aussi ñu wax Sénégal yi dëgg pour ñu comprendre. tey jii on a fait un très bon match. un match correct. mais malheureusement bi ñu demee ba santé ci biir match bi soixante quinzième ba soixante soixante seizième soixante dix huitième la carcasse de euh, Cheikhou Kouyaté mhm. nga gis ni répondant bi mu amoon au milieu bu presque milieu hollandais bi à chaque fois que euh, duel yi doon am daf ko doon daf yëpp daf ko doon gagné mhm. mais diagonale bi bi bi bi bi euh, kii le le milieu de Barcelone la bi mu def ba seen numéro bi di ñëw dugal ko foofu Marcachero. Mhm. dafa il est libre de tout bord. Mhm. te Hollande boo ko boo ko suivre ci demi ci quart euh, demi finale euh, kii non qualification mondiale bi. Mhm. ak même aussi Ligue des Nations yi genre bal yooyu la lay dugal. dëgg la wala nga nga nga nga dominer ko mu def contre def ñaar ñaar touche de balle ñëw say camp dugal comme seen deuxième bi bi. wax nga dëgg. foofu loolu aussi dañ koy nangu. Hollande moo ñu gën gën gën gën sur le plan footballistique. ñooñu daax football ñooñu raw. Mm-hmm. dañuy nangu nag ñun tey ji on a fait un match correct. ah oui énorme. parce que ay erreur yu ndaw manque de concentration parce que dem nañu ba jàpp ñun ñun équipe bi tëree ko nag mënatuñoo gagné. wax nga dëgg. mais ibi bi foofu la ñuy jàngee match mi ma du ñëw rek naan ay kii du gagné nañu tey dañuy dóor kële wala commencé lii non. match bi dafa am lecture buñ ci war a def. Mm-hmm. pour mën a xool les prochaines matchs là nan lañ ko aborder pour mën koo gérer. du début à la pour mën a mm-hmm. la vérité. wax nga dëgg de. loolu mooy wax ji mais bu ñu nekk fii di contenté wu ci ay wala gañu woon nañu ko defee noonu loolu c'est déjà passé. Mhm. équipe bi tey dafa manqué manqué manqué manqué manqué un moteur. qui mhm. s'appelle Sadio Mané. Mhm. booy def tey man ma si franchement parler pour dire vrai moo la koy dëgg match dafa ma bett. franchement parler. kii ku ne ku ne football nag laa lay wax de. match bi booy tey jii c'est un match correct. dëgg la. manque de concentration moo tax ñu jël ñaari bii. au finish mais loolu après dañ koy rectifier ñu avancé. loolu mooy wax ji. mon frère ngi lay ziar bu baax a baax. d' accord naa d' accord jërëjëf jërëjëf Matar Lam xam nga ko Pape Malick jërëjëf Matar Lam fi mu cof man dama ne woon damay bàyyi ba ba coupe du monde bi jeex.